sëñ Muntaxa wax na ni noppal nga ko sëñ Muntaxa nee na jàmmal nga ko sëñ Muntaxa nee na jàppale nga ko sëñ Muntaxa nee na taxaw nga ko ci liggéey bi ba démb addiya ji bi ñuy ñëw soxna si daf ma ne lu mën a xew addiya ji mu leen toppaat ndax moom lépp lu ko sëñ bi jox da koy dajalewaat fulaat ko ni ko dugalaat naa ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaye nag sëñ Muntaxa ne bis bi nag bisub sëñ Abdou Khadir la ëppale woo ko ci bis moom moo ko moom kon nag mu ne am na sañ-sañ jël ay alalam tàbbal ko ci bis bi mun mu sant la gërëm la ci say taxawaay bi nga doonee doomi Sëñ Abdou Khadre ba noppi nag yor kàddu bi yoon wi li tax ñëpp raw moo ne ci yow mooy ab murit nga te sëriñ ak murit nag bokkul kon sëriñ baa ngi lay sant mi ngi lay gërëm ñu safoon ko li nga xam ni mooy kàddu yi bàyyi ko ci soxna si lépp lu ci manqué mbaamu dëng ñu xam ne ci ki koy wax la waaye fa mu bàyyee koo na fa sëkk. nee na daanaka liñ ci war a wax lépp bii bi sëñ Muntaxa yónnee nee te so soxna si daa ko andi naka jekk ba biig mu am gàllankoor daal di koy yónnee ndax naka jekk lu fi sëriñ bi di yónnee ci màggal gi njëkk muy nekk ci jootaayu sëñ Tuubaa bii tey nee na ci moom mii la koy jaarale ngir xam sama digganteeg moom ñaa ngi koy sant baax di ko gërëm ak ñi mu àndal ñëpp nuyu Cheikh Moustapha Alaaji Baara mii nga xam ni moom sama digg moom ñëpp xam nañ ko ngir pastéefam ak ay taxawaayam nee na lool danaa ci dellu si waat kon ne soxna Baali mun ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm la ca jiitu nag mooy liñ seere woon démb mooy sa taxawaay ci sëriñ bi nga xam nañ ni Pastef rek nga ànd ak moom. te dégg naa ci làmmiñu sëriñ bi. sacrifié nga sa jëmm jëpp. mu nee na sëñ bi ne yow sacrifié nga sa jëmm jëpp. ngir moom. loolee nag mu ne su ko weesu. ngërëmam ci yow itam. ngërëmam ci yow itam. amatul ab ab. te nee na loolu man Cheikh Bassirou maa ko déggee ci làmmiñam nee na wax naa biig wax na biika ci kaddu yi am na ci lool ma ne su ko wax ci rajo waaye lii may wax neena na yàgg na war naa mat fukki at booba Cheikh Sidi Mokhtar moo fi toogoon ci jotaay Sëñ Touba ci lim mujjee waxtaan ak man nee na sëriñ bi di waxtaan ak man ne ma yow de ni sa digganteeg soxna si moom sama ñaan gu nangu la. nee na ci lim ci mën a nettali daal. daan ne seen diggante daal. nee lu sëñ Tuubaa def la. waaye nag sama ñaan gu nangu la. ndax sama xel dal na sa digg ak moom. nee na looli nag foofu rek laa ci mën a yem. li ci des mu ne su ko wax ci rajo. muy wax joo xam ne bi koy wax ni soxna Baali mii nee na fekkewu ko. muy wax ju sori ci sëñ bi muy ni wax ju xóot nee na kon buñ sekkutoon dara dara it lool rek war naa tax ma téye ko rawatina nag nee na fii mu nekk nii ci man ci cofeel ak ci yërmande ak ku jàpp nee na nga xam ne loolu kenn mënu ko weesu nee sama moo ko gënal ndamam man naa ne sax sama jëmm moo ko gënal jëmmam. nee na loolu ñun ñi fi ne ñëpp a ko xam. kon dañ koy bàyyi ak maamam. yàlla na ko aar te sàmm ko. guddelaaw fanam. ba mu gën a làkk ngërëmal sëñ Tuubaa. nee na rek lay yéemu. loolu sax nee na jotuma koo nettali. nee ndax altine ni ci tey. bis ci alquran yi ak euh, di xaside yi. sëñ bi da jox ndigal soxna si. bi daa jox ndigal la soxna si. ab baa bu ñu ko joxoon addiya. ab baa bu ñu ko joxoon addiya. mu ne kon nañ ko toggal njabootu sëñ Tuubaa te teralee leen ko. yàlla def nag. nee yàlla def nag. bi ma sëñ bi yónnee may wër. may wër. nee na ma fekk nag ñu bàyyi fa sama añ. waaye wóor ma ba xam moom la am déet waaye nee na ji ci sëñ bi amoon nee mu des ci sama xol bi démb nit ñoo jox ma ab addiya nee na ma ne ko kon nañ ko tàmbaliwaat ci bisu altine bii nañ ko defaat ci bis bii nee na kon loolu ci nee loolu lu sori laa ci gis nee ndax maam Cheikh bi muy jóge ñaaxeen bi fa Cheikh moo Moussa di bàyyi koo moom la ko joxoon addiya maam Thierno bi ñuy taxawal yoon wi ginnaaw sëñ bi ci doxin wii bi muy ñëw aw baa la ko jox addiya nee kon loolu lu sori la nee na ni sëñ Moustapha mii nee na soxna Bali maa ngi lay seeral sama cant ci sëñ Moustapha Laaji Baara nee na ndax ci lu ñu bari xamul. nee na ni sama liggéey bii da cee amub cër ndax alaaj baara ci boppam moom mii moo ma booleeg moom nee na loolu ñu bari xamuñu ko moo ko njëkk andi sama kërit nee na ci sama doom ju mag nee bi mu juddoo bi ko Cheikh la Lamine Baara yëgee nee na Cheikh Moustapha mi ma dawal otom keroog indi ko fi nee na mu wax fi wax ju baati ne. nee na kon foofa moom lu yàgg la. waaye dama lay seereel ni. ci nekkuk Cheikh Modou Lamine Baara. ba sunu jotaay bii. musuma fàttaliku lenn. du ci sama kanam. du ci sama ginnaaw. lu dul ak fonkel. ak jàpp ma ni mu jàppee Serigne Baara. nee na xam xàmmewunu maa ngi fàttaliku. barki dem rek laa koy nettali nit. bi Baara nekkee ci mujj gi. bi nekk nekk aliya. nee bis bu yàlla sàkk. wala bu jëllalee bis. nee na faw mu ñëw fii. leeral ma. noonu la ànd ak moom ba ginnaawam. nee ginnaawam itam. nee na xam ne ni sëñ Moustapha mi nit ku dëgër la. nee na ndax ni fekk fekkuma fi woon. waaye keroog ba ma agsee sax daa jooy. waaye keroog ba ma agsee sax dafa jooy. saa su ma saan agsi ci kër Serigne Bara rek. saa ndax lii may wax moom ñëpp ko daan na fekkee. nee na bu ma duggee rek. li muy njëkk a wax mooy na ñëpp génn. daal di bunt bi génn ci biti. nee na noonu yi la ànd man. ba mu toll ci juróomi wala juróom ci juróomi at wala juróom-benn. nee na mu jël doomam mu tuddee ma ko. nee te boobu sax néew fi woon maa nga Mauritanie. Serigne Moustapha mu sëñ Saliou moo ñëw tudd ko. nee na mu tuddee ma ko. kon moom ak jàppam ci man. lépp lu muy def rek. man la ciy jiital. nee na ndax fi muy àgg sax mënu ma ko waxal sama sama bopp. waaye nee na sant nañ ko bu baax. nee na loolu Mbàkke dama la koy seedeel bu baax. jërëjëf.